alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika muhammad wa alaa aalihi wa asxaabihi ajmaiin mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu borom tabaaraka wa taala def ay ndigalam te bàyyi ay tereem mbokki jullit yi doomu aadama ju nekk fii ci kaw suuf lii itteem mooy seet gëstu sonn ngir àgg ci li ñuy tudde texeg àdduna texeg àdduna muy saadatu dunia wala saada mooy am dund gu neex goo xam ne day ànd ak dal goo xam ne amatuloo problème amatuloo jafe-jafe saada moomu muy àgg ci su dund neex te amatooy jafe-jafe mooy lan dëgg-dëgg ak fan la nekk ndax dafa nekk rek ci alal yu bari yoo xam ne nit ki da koy dajale bépp moyen boo xam ne soxla na ko ci àdduna mu am ko ndax foofu la ak texe nekk ci àdduna texe googu ndax dafa nekk ci place boo xam ne nit ka da koy wàcce muy ndomb ak tànk moo xam gu mage la wala gu digg doomu wala nu mu toll waaye daal da koy teg ci béréb boo xam ne mbooloo mu bari dañuy nekk ci suufam mu yilif leen ñi koy liggéeyal di déglu ndigalam ndax foofa la ne ndax goo gi dafa nekk ci wér-gi-yaram ak nit ki am lu ko doy sëkk ci ab dundam am ak njaboot ndax foofu la texe nekk ndax dafa nekk ci mucc ci doomu aadama yi ak seeni lor ak seeni wax ak seeni jëf ak seen keñaan ndax loolu mooy texe texe moom yi day ay nit jéem nañ koo wut jaare ko ci ay yoon yoo xam ne yoon yu dëng la faf mu soppiku ci seen kaw alkande faf nekkatul ak texe faf mu alag leen buur bi mu daan wax firawna sàkku na ak texe ci nguur ci nee na am nguur yàlla jox ko nguur gu doy sëkk waaye nag ngëm nekku fa imaan àndu ca àgg na ci dem bay damoo nguuram di wax ne alaysa li mulku misra wa haadihi al anhaaru tajri min mu ne man xaraadu may buurub misra te misra booba buñ ko waxee ci yooyu jamono lu rëy a rëy tudd booba mu ne te boo xoolee sama pale yi ma nekk di dund ci kaw boo xoolee dex yaa ngi daw ci suuf foo xoolu dex la kon mi ngi damoo nguuram waaye mu fàtte ne nguur googee mu nekk yàllaa ko ko may Égypte googee muy damoo muy misra yàllaa ko ko jox mbooloo moomu nekk ci suufam bam mu jàpp ne dara tëwu ko yàllaa ko jox mbooloo mi alal ju bari jim am fàtte na ne yàllaa koy jox muy lekk moo koy jox mu naan dem na ba àgg ci wax nit ña bi nga xamee ne yëg yëgal nañ ko ne yàlla am na jeneen judul yow yonent yàlla Muusa wax ko ko mu ne maa alimtu la min ilahin gayri mu ne man day xamaluma leen jeneen yàlla judul man kon kooka àgg na fa mbewte di àgg la doon ak mujjam bi mu demee ba àgg foofa mooy texe gam doon wut wëlbatiku na ci kawam soppiku alkande borom bi tabaraka wa taala ne fa axadahu llahu nakaala al axir nakaala wal uula sun borom tabaraka wa taala teg ci kawam mbugalum àdduna ak mbugalum alaxira kenn ku nekk xam na nam faatoo jaamu bi yàlla bu wax qaaruun te dafa daje woon ak Firawna ci jamono kële doon boroom nguur kii moom gëstu ji ak texe ci alal boroom bi tabaraka wa taala sottil ko ci alal loo xam ne jéggi na dayo ni ko sunu borom waxe daf ne wa aataynaahu min al kunuusi nee na sottil nan ko ci xeeti alal yoo xam ne lii wurus ak xaalis la lii ay moomeel la lii ak jur la lii ay jaam la maa inna mafatixahu la tanuu bil usbati ulil quwa nee na alal jooju màngasin yañ ko def caabi ya koy tëj mbooloo mu am kattan sax suñ yanoo caabi ya day diis ci ñoom kon màngasin ya bari na lool waxul na alal ja tollu de waaye màngasin ya koy tëj caabi ya dong la tanuu bil usbati ulil quwa mbooloo mu bari te doon ay ndaw yu am ay kattan suñ leen yanoon caabi yooye day dañuy sonn lool kon jooju alal jéggi na dayo alal jooju nag du caagi ne xam-xamam a ko may du caagi ne ak yawute wala muus moo ko ko may du it aw ñaq nekkul woon xarañ ci wàllu liggéey waaye sunu borom tabaraka wa taala moo ko ko sottil rek waaye nag mu def safaan ba ñàkk gëm yàlla boole ko ak bew ci kaw suuf boole ko jàpp ne alal ji pexe boppam ak ko jox ba wax ne innama utiituhu ala ilmin indi ne alal ji sama xam-xamu bopp moo ma ko jox booba la mbewte ma ñëw ndax delloo wut yëf ya ka ko moom luy mujj ga fa xasafna bihi wa bidaarihi al ard texe gam doon wut yàq na ko ndaxte yàlla da ko jox xéewal te xamu ko mu weddi xéewalu sunu borom tabaraka wa taala yàlla nee na ma toraxal ko labal ko moo këram boole leen tàbbal leen ci suuf loolu mooy xas xëy na rek toog mbooloom wër ko mu toog ci seesam ak mbooloo ba mu jàgg ñu gis tabax bi di dem di wàcc ànd ak moom bi mu daataan génn rek lépp seey suuf maasaloo ci kawam noonu la sunu borom tabaraka wa taala alage qaaroon abu lahab nekk waajur nekk bàyyi ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax moo baayam ñoo bokk wuti woon na ak texe ci daraja sunu borom tabaraka wa taala may ko daraja bam bokk ci ñetti nit ñi nga xam ne ñoo yilif giir Quraysh muy giir gi ëppoon doole te gënoon a tedd ci Makka Abu Lahab moo doon benn ponk bi kon àggoon na fu daraja di àgg waaye lu ko jural weddi yàlla yebal ab yonentam mu wax ko wax ju ñaaw weddi ko woo ñi ci weddi ko jeexal ak dundam ci loola sun borom tabaraka wa taala toroxal ko wàcce ci moom alxuraan muy dund muy tabbat yada abi lahab mu ne abu lahab alku toskare na te fam jëm mooy sa yasla naaran zaata lahab fa mu jëm mooy dana tàbbi sawara kon kooku wal iyaasu billah texe gam doon wut amu ko torox na ndax jaarewu ko fañ koy jaare meneen moroomam doonoon beneen ponk ci Quraysh ku ñuy wax alwalid ibnu mugira moom dafa jàppoon ne bari ay doom foofu la tiraanga nekk mu di ko sàkku nag ci anam ku nekk sunu borom tabaraka wa taala wërsëgale ko fukki doom yoo xam ñépp ay ponkal lañ ay xeexkat lañ ay boroomi doole lañ ay liggéeykat lañ mu daan damoo doomam yooyu ba bu ma sant toog ci jotaay sax day wax da juróom toog ci wetu ndeyjoor gi juróom toog juróomi ponkal toog ci wetu càmmoñ gi ngir ñu xam ne moom moo tollu noonu fam mu jëg boroomam mooy weddi ko sunu boroom tabaraka wa taala boole ko njabootam googee toroxal ko moo tax mu ne zarni wa man xalaqtu waxiida bàyyi ma kii nga xam ne fàtte na ne ba ma koy bind moom dong moo ne woon cëpp ci suuf tekkiwul dara doonul kenn amul woon doom amul woon jabar wa jaaltu lahu maalan mamduuda ma sottil ko alal ba mu bari wa na shuhuda ma may ko ay doom yoo xam ne fu mu teew sax ñu teew fa comme noonu mu ko bëggee woon wa mahattu lahu tamhida ma yombalal ko mbir yépp te doyloo wut loolu xanaa fu mu toll fu nekk di wut ndolleen te boolewu ci gëm yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na mu alak lu ëpp ci doomu aadama yi jàpp nañ ne mooy yi nekk ci kaw suuf muy alali àdduna akuk moomeel akuk pal ak daraja jàpp nañ ne loolu mooy texe waaye loola du texe am na ci nit ñi ñoo xam ne jàpp nañ ne buñ siiwul rek ba ñépp xam leen ñoom amaguñ lañ bëgg kon seen dunduk àdduna du neex pexe muñ mën a def mu nekk danañ ko jéem a def ngir leen nit ñi lañu leen xam am ci ñoo xam ne jàpp nañ ne xeetu pop ak caaxaan tëgg ak fecc ak yoo xam ne lu bari ci sun jamono tey dañ koy jëfandikoo mu doon ak mooy yàlla defe nañ ne foofu la seen tiraanga nekk seen daraja tam foofu la nekk ba loola dox na seen diggante ak seen imaan muy seen diggante ak seen gëm seen boroom borom bi tabaraka wa taala xamal nanu ne texe daf koy muur ci képp koo xam ne nangulu ko nguuram gi nangu koo jaamu nangoo toroxlu fi kanamam nangoo sujjóot fi kanamam nangu koo tuubal ci say bàkkaar ki nanguwut loolu borom bi tabaraka wa taala nee na mënta texe fii ci àdduna ak lu ko mën a jox nag muy alal muy ak pal muy daraja muy mbooloo li ca mën a xew borom bi tabaraka wa taala nee na wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka ki won gannaaw tudd yàlla wan gannaaw alquran won gannaaw diine lislaam sun borom tabaraka wa taala ne fu mën a jëm ak dundam day fees dell ak i tànk-tànk maanaam ay jafe-jafe maishatan danka te it yemul ci dund àdduna naqari waaye wa naxshuruhu yowma alqiyaamati ama nee na ëllëg bu ma koy dekkal bu dekkee du indaale ay bët du gis su boobaa nag mu ne qaala rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira su boobaa dana ne yàlla yow sama borom lu tax nga dekkal ma ma indaale ak ngumba te man ci àdduna dama doon gis borom bi tabaraka wa taala ne ko kadalika atatka ayatuna fa nasitaha sama alxuraan bi ba ma ko wàccee ñi indi ko nit ñi di ca woote di ko jàngale di ko dund di ko jëfe da ko koo waroon gannaaw yow da ngaa meloo ne ku gumba ci alxuraan loolu moo tax ñi gumbaal la nag tey ne na nga gumbaa woon ba nangoo woon a xool alxuraan nangu woo ko woon a gëm nangu woo ko woon a dund kon nag tey da gumba ba li nga bëgg itam doo ko mën a am kooku misaal la rek ci texee di ga ca nar a tegu wal iyaasu kon bokk jullit texe gi ñuy wut ci ñaari mbir la nekk al iman muy gëm yàlla ngëm gu sell pas-pas bu sell boo xam ne njaxas nekku ci wala amalu saalix ak jëf yu baax yi suñ borom tabaraka wa taala santaane yépp ci yu baax muy jaamu yàlla yi muy lu aju ci pas-pas yi lu aju ci jikko yi lépp loo xam ne luy rafetal la nga nekk ca loola loolu mooy indi ak texe fii ci àdduna te moo koy indi itam ëllëg loolu moo tax Ibrahim alayhi salaam am na ak texe ci imaan moom i wala wax ci ngëm yàlla ndax dafa gëm dund tawxiid boole ko ak woote ci tawxiid aw nitam àndandoo ne nañ ko sànni ci sawara foofa la ko texe gi dikkale ànd ak ne foofa moo doon al palaasub alku la sunu borom tabaraka wa taala génneel ko ci loola ak texe qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim sunu borom ni yow sawara nekkal ab sedd nekkal jàmm ci ibrahim nee wa araadu bihi kaydan fa ja'alnaahum al axsariin ña nga xam ne ñoo ko doon fexeel ñooña ma jox leen ñu perte qulna ya naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim noonu ko sun borom waxe ne na nekk ab sedd bu ànd ak jàmm ci ibrahim yonent bi salaaman sawar woowu ñu ko tàbbal ak la tàng tàng ak la muy metti metti su borom bi yemoon ci kuuni bardan nekkal di ab sedd nee na kon sedd ba dana rey Ibrahim ci biir sawara wa waaye nag ba mu ne bardan wa muy sedd bu ànd ak jàmm moo tax dafa nekk climat bu yem rek ci li nga xam ne moom la yaramam aajowoo kon ña ko bëggoon a toroxal bëggoon koo suufeel ngëm yàlla ga ak jëf ju baax ja tax na toroxtaange ja faf soppiku texe ga nekk foofu faf nekk noonu yonent yàlla bu ñuy wax yunus ibnu matta borom bi tabaraka wa taala daf koo nattu nattu boo xam ne mosu koo nattu kenn muy aw jën wan na ko jën wi ñuy wax xóot mooy jën yi gën a rëy ci géej gi nga xam ne mën naa wan sax aw fas moom la yàlla dogal mu wan yonentam boobu ñuy wax yunus ni ko borom bi melale nee na mu nekk ci ñetti lëndam bi muy woo boroomam ci ñetti lëndëm la nekk muy lëndëmu géej gi ak lëndëmu biiru jën wi mu nekk ak guddi gu lëndëm gi mu nekk ndax biir géej rek dafa doyug lëndëm lëndëm doy na lëndëm waaye muy guddi di géej boole koog di waxtu lëndëm weer fequt ba noppi mu nekk ci biiru jën kon kooku mi ngi ci jafe-jafe bu metti boo xam ne mën nañoo jàpp ne foofa soree na lool ak texe waaye mu woo ki nga xam ne fuñ ko woo ak lum sori sori lum lëndëm lëndëm mu daal di doon ku jege wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata woon sama jaam yi buñ may laaj nee leen man ku leen jege laa suñ may wooba di leen wuyu foofa la yunus waxe ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin loolu nga xam ne ku ko waxta nekk ci njàqare sunu borom tabaraka wa taala dana la ca génne loolu la Yunus wax sunu borom tabaraka wa taala ko mu génn ca loola ak pexeem daal biir leer nañ Yuusuf alayhi salaam am na pexe ci ab nat la jaare tëj nañ ko àtte ko tëj ko juróom-ñaari at ci tuuma joo xam ne dara wéru ca muy li jëm ca jabari buur ba ci biir kaso ba ñam dëkkal ñi koy laaj xam ne moom firikatu gént la ñi di ko firiloo gént waaye mu teg fële firi nekk ci biir kaso ba di woote ci tawxiid yaa saaxiba sijin yéen ñaari sama àndandoo yi ci kaso bi a arbaabun mutafarriquuna xayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar ci woote boobu la nekkoon ndax ay yàlla yu bari moom la nit ki war a gëm waaye li nit wala li nit war a gëm mooy jenn yàlla ji nga xam ne mooy alwaaxid mooy kenn ki alqahaaru mooy ki not ñëpp di leen wax ne bu leen bokkaale yàlla jenn lay doon waaye bu leen jéem wut ñaari yàlla loolu la nekke woon ca kaso ba ba sunu borom tabaraka wa taala xettali ko ndax moom mi bokk ci ibadullahi almuxlasin ni ko sunu borom tabaraka wa taala waxe ak texeem daal di tàmbalee foofa te yemu fa Muusa alayhi salaam biñ ko dàqee ba mu dugg ci biir géej ga moom mbooloom ngëm yàllaam ak jëfam ju baax moo ko xettali ndax bi ko àndandoom yi di wax ne noonu day noo ngi ci problème boo xam ne dootu nu mën a génn ndax dugg nañ ci biir géej gi firaw naa ngi ci suñ gannaaw ak mbooloom di nu dàq te danañ nu rey te géej gi rek moo nekk sun suñ kanam waaye la mu tontu mooy kàllaa déedéet inna ma'i rabbi sa yahdiin man saa boroom laa àndal te dana ma wax nu may def ca noonu la ko sunu boroom tabaraka wa taala xettlee mu jóge ca texee di gañ ko bëggoon a dugal delsi ci ak texe ba faaw te ngëmam yàlla ak yaqiinam moo ko may loolu yonentu bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam muy Muhammad ibn Abdullah moo seetloo bañ ko ba mu génnee Màkka jëm Madina ñëw ba ci benn xunti xeer mu dugg ci biir ànd ak Abu Bakr as-Siddiq taala anhu yéefar yaa ngi taxaw yor seeni jaasi ci wetam te gisuñu leen Abu Bakr ngi tiit jël yaramam di ko làqe yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg suñ ko gisee defe ne Abu Bakr kese ba suñ doon def musiba yemale ko ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa taxzan inna allaha bul tiit bul jàq ndax nun yàlla lan àndal kon ki àndak yàlla su ngëmam wéree du jàq du tiit loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal Abu Bakar foofu te kàddu googu nga xam ne dafa feeñal li nekkoon ci xol boobu moom ca la texe ga dikke ci mbir moo xam ne alkane mënoon na caa juddoo saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi taala anhum bi nga xamee ne mbir ma metti na lool ci Uhud nit ñi àndandoo ne leen ah yéen day tey xaw fu ngeen jëm yéefari naafiq yi nekkoon ci biir Madina ñoo ko doon wax jullit yi alladina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum yéen day sew ba ngeen jàq nag te tiit te xam ne àdduna ci biiram nag àndandoo na ñëw bëgg a dëkk bi daal ci seen kaw yéen de tey du ngeen ci man dara fa zaadahum imaana loola wax jooju ñu ne leen da ngeen a war a dolli da ngeen a war a tiit wax jooju nee na moo yokk seen ngëm yàlla daf leen defal renforcement ci imaan wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil ñu ne nun yàlla doy nanu te ci yàlla lan wéeru boroom bi nee na lan lañ leen faye fanqalabu bi nicmati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu ñi wëlbati ko delloo yërmaandey suñ boroom ak i xéewalam ak i ngëneelam benn ñaaw téef dalul ci seen kaw kon loola la leen sunu borom tabaraka wa taala faye al imaam ibnu hanbal biñ ko tëjee ci kaso bi ci jamonoy al ki nga xam ne moo nekkoon ca kaso ba te yore prisonnier ya nee na doon nañ ko dóor dóor yoo xam ne buñ ko dóoroon gëleem mu dee ci imaam ju noonu ànd ak lépp mu muñ ci ne pas-pasu ahlu sunna wal jamaa bi nga xam ne moom la yor kenn mënta tax mu bàyyi ko borom bi tabaraka wa taala xetti xettali ko mu mujj nekk imaamu ahlu sunna wal jamaa fépp fu borom xam-xam nekk ci àdduna te sunna itteel la ngay jóge fa nga nekkoon di ñëw seet si Ahmad ibn Hanbal ngir jariñu ci moom ka doonoon buur te doon ko dóorlu bi demee ba nekk ci sukuraat dafa li tapp yu rafet yañ ko lalaloon ca néeg ba ba jot suuf sa mu jël suuf si di ko xëlam ci xar kanam bi di jooy jooy metti di wax ak boroomam ne ko yow mi nga xam ne sa nguur du dañ ay waay yërëmal ki nga xam ne nguuram dañ na waay noonu la doon wax ak boroomam daa di dem ndeysaan daa di jóg toog ne su xamoon ne day ci ndaw laay ndax li ko war day lor war ñu bari am na ñoo xam ne lañ nekk ci alal ak man-man ak yu mel noon dafa ne ne suñu borom da di bàyyi ñu dund ba doyal nag ci seenu nag ñu tuub naa waaye mbir ma bett ko nag feebar dikkal ko mu feebar nar a faatu ci jeunesse am amagul daanaka quarante yu mat mu ne su ma xamoon ne ak ndaw laay faatoo day bakkaar yi ma nekkoon kon du ma ci nekk kon kooko foofaadik mu jëm ànd ak lim yoroon ci xéewalu àdduna ak ay kàttanam xéewal yooyu soppiku alkande soppiku safaanu texe kële ñu doon bugal ak di ko lor te imaan nekkoon ca xol ba jafe-jafe yam doon dund wëlbatiku soppiku nekk tiraangay àdduna ak joj àllaaxira insha allah ahmad ibnu eh, ahmad ibnu bokk ci kenn ci àndaloy imaam ahmad ibnu hanbal moom yi ndax ci am ngërëm la nekkoon dañ ko doon jàpp di ko jéng di ko lor di ko tëj benn bés dañ ko dugal ci ab néeg bu xat tëj ko foofa mu jàng waxi sunu borom tabaraka wa taala fa duriba baynahum bi suurin lahu baabun baatinuhu fiihi rahmatu wa zaahiruhu min qibalihi al-azaab lam cay wone mooy dafa mel ni ñoom fii ñu ko tëj jàpp ne foofu dañ koy mbugal moom gëm na ne li féete biir tam nekk fa foofa mooy yërmaande ja waaye la ca bitti féete nit ñi nag foofa la mbugal ma nekk ak metit wa moo tax da doon wax ne sama noon yi day xawma lan lañ ma manal ndax man sama ngëm mi ngi ci sama xol fu ma jëm dama koy yóbbaale suñ ma reyee loolu shahaada fi sabilillahi la maanaam damay bokk ci martyr yi nga xam ne ci yoonu yàlla lañ ma rey suñ ma dàqee ma génn samam réew itam nee na loolu tourisme la boo xam ne bu nit ki di jariñoo la nee na suñ ma tëjee itam kooku wéet sama borom la boo xam ne mën naa faa jàng alxuraan mën naa faa jàng xam-xam mën naa faa bind loolu wane na ko ndax li ëpp ci xam-xam boo xam ne bàyyi na ko tey ci kaw suuf nit ñi di ko jàng ci ko binde bokk ci téere bu rëy bi xam ne ñaar fukki tom la ak juróom-ñaar ñu di ko wax majmuul kooku ci biir kaso la ko binde kon tëj ga doonul lor ibrahim ibnu adham muy ku baax dafa ñàkkoon ba ci mbedd lay fanaan ànd ak ne boroom xam-xam la bu masaan xëy bu amee wenn morso mburu ci lay ndékki ci lay añ ci lay reer ànd ak loolu ngëm yàlla gi ci xol bi ak tudd yàlla ga ak jàng alxuraan ga ak xam-xam bi muy dund day wax ne man dey dund gii may dund ak li may yëg su ko buur yi xamoon dana leen jaral ñëw xeex ak man yor ay jaasi di xeex ak man ba nangu ko ci man te jox ma geneen dund gu bokkul ak gii kon ngëm yàlla gi ak la nekk ci xol ba foofu la texe gi nekk bari ku xëy yor ay sagaram gàddu ab ëlleeram wala martoom kër këri ñaq sonn fàggoo tuuti dikk dund ci ab dundam jant soo mu tëdd nelaw ba suba mu xëy dem liggéeyiwaat jaamu boroomam ànd ak imaanam ànd ak tuuti alalam di yëg ci ak texe ak féexuk xol loo xam ne am na ku koy romb di dawal xeeti oto yoo xam ne maar day taali di dugg ci ay kër yoo xam ne maar day taali te kooko bu guddee du nelaw bu guddee du nelaw mi ngi xalaat ci ay problème ak ay yan yu diis yum yanoog ay yëf yoo xam ne kenn xamul fu mu koy yanni ko ci àdduna loola ca fér-fér joojee ca lay nekk ba keroog muy wuy ji boroomam kii nekk ci ab nooflaay te fekk yorul ay moyens yorul dara moo tax ku borom bi tabaraka wa jox alal te ngëm yàlla àndu ca wala mu jox la pal te ngëm yàlla àndu ca wala mu jox la daraja ak mbooloo te ngëm yàlla àndu sooy boo nga tiit xam ne fa inna lahu maishatan dankan gi sunu borom tabaraka wa taala wax ne ab dundam day fees ak ay tànk-tànk sooy boobu xam ne loolu moo di cëram fii ci àdduna ak lu mooyee bari bari kon mbokki julli di gëm yàlla foofa la mbir ma nekk yàlla na nu ko sunu borom tabaraka wa taala wërsëgale xalifa bu mag te siiw te amoon doole te baax loolit nag ñi koy wax Haroona Rashid Haaruna Rashid xalifa la woon boo xam ne lim daan joxe fi ci alal ak li nga xam ne daana ko def ci lu baax da daan def bu atee day dem aji bu meneen at ñëwee mu jihaat fi sabilillahi noonu la ko doon séddalee ak dundam Haaruna Rashid ak nguuram ci lislaam yaatu woon na ba da daan toog aw niir aw niir romb ko ci asamaan si di dem mu ne ko sooy boo nga dem foo ko mën a tawee rek foo ko mën a tawee impôt bi dana ñëw fii noonu la ko daan waxe nga xam ne taw ba fu mu bu nit ña bayee ba seen impôt ki danañ ko indi jox si ko xilaafa gi kon nguuram noonu la yaatoo woon dafa dem ba jëmmi jamono mu tabax nag benn palais tabax bu yéeme def ci alal nag ju bare bare bare bare bari def ko it mu sës rëkk ci dex gi nekk ci Baxdaad bi mu noppee lu doon xeeti décoration yu rafet mu def ko ci ay bunt ay fenêtre yoo xam ne yépp dafa doore bi mu noppee nag ba di ko inauguré mu woo mbooloo mi ñuy ñëw ngir seet ci tabax bi ak gis ko xool jardin yeeg mboolem lu fa nekk ci lu rafet nit ñi dugg mbooloo par mbooloo ku dugg rek ndokkeel ko génn dem ba am mbooloo mu dugg mu xool seen ci biir seen biir abul hutaiya Abul Utaahiya dafa doonoon koo xam ne ab poète la nekkit ku dëddu àdduna daanaka lu bari ci lu mu bind ci wàllu poésie ci wàllu dëddu àdduna la ko def bi mu gisee mu bokk ci seen biir nit ñi di ndokkeel di wax kenn ko ne nag ah lii day xéewal la nangam mu gis ko mu ne cell rek mu ne ko yow dey bëgg na maa dégg sa kàddu Haaruna Rashid wax ko Abul Utaahiya ne ko yow sa kàddu ñor na ma lool ma dégg ko mu ne ko ish ma bada laka saaliman fi zilli shaahiqati alqusuur nee na ko dundal lu la neex ànd wirgi yaram ci tabax yu kawe yajri alayka bima aradta maa alguduwi maa albukuur nee na mu di la sottil di la andi lépp loo bëgg na ci jot suba ak ngoon fa ida nufuusu tagargarat bi zafiri xashrajati sudur fa hunaaka taalamu muuqinan maa kunta illa fi xuruur mu ne ko jamono yoo xamee ne rek dem nga ba sukuraat ñëw jamono yoo demee ba sukuraat ñëw dem ba àgg sa noogi da koy xëcc ba sonn ngelaw li door a mën a génn nee na su boobaa nag bis boobee ngay door a am yaqiin ne ndekete yu rafet yii la waroon yépp ay nax la woon waaye du dara bi mu waxee lii ba daaneel mu ne ko waxaatal li nga waxoon mu waxaatal ko ko ñetti yoon mu dégg Haaruna Rashid dal di jooy jooy yu metti ba daanu sax ci suuf ñi di ko yëkkati bi mu jógee mu ne mboolem décoration yi ñu fi defoon nañ ko dindi ñu dindi lépp fenêtre yi ñu doore woon ak yu noonu yëpp mu ne leen nañ ko tëj ñu daal di tëj bunt ya mu wàcc génn dellu ca kër gu yàgg gam dëkkoon foofa la nekk booba pale moom ñu daal di koy tëj matul ab diir bu yàgg weer wala weer ak dara yàlla dogal mu faf génn àdduna moom ci boppam la ko kooko doon wax daal di ñëw mbokki jullit yi ku bëgg a texe fii ci àdduna ak àllaaxira sag texe ngi ci jàkka sag texe ngi ci alxuraan sag texe mi ngi ci tudd yàlla sag texe mi ngi ci jàng xam-xam ak dund ko mi ngi ci sunna si bi sallallahu alayhi wa mi ngi ci njub mi ngi ci mbaax mi ngi ci rafetal jëme ci doomu aadama yi ak taqoog yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba keroog ngay génn àdduna yàlla na sunu borom tabaraka wa taala defal loolu allahuma aqsim lana min xashiyatika ma taxawlu bihi baynana wa bayna maasik ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا wajcalhu alwaarisa minna wajcal sa'rana ala man zalamana wansurna ala man aadaana wala tajcal musiibatana fi diinina wala tajcal addunya akbara hammina wala mablaga cilmina wala tusallit alayna bidunuubina man laa yaxaafuka fiina wala yarxamuna allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulik wa ala aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin wa aqimi salaah